di dem jot yi kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm yu bàyyi ko ci ci su nekkee jëmmi Sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg ci lool te ànd gër ba mott bi mu waral ay yéenam ak i naaram te dara génn ci diggéen Sëriñ Tuubaa moom kilifa bu ma sëkk kilifa kilifa boo xam ne li ñu doon kilifa foo ko gisee rek sax dem ci moom mooy delloo rek sa borom mooy xam ne itam ku ko xam ci mën a mun mën a dékku ak fàtte boppam lu néew néew la muy jëmbu joo xam ne la ko waajuróom Cheikh moom ba si seeraloo rek mais ma jaaxal de moom mu taxaar ndax moom daa a kat bëgg naa dara de waaye dama bëgg moo jafe kon kilifa bu mel noonu bu am war ngay fàttali bu baax ci ginnaaw bi nga nekk ndax buñ ne sëtu seere mooy sëtu Serigne Touba bi njëkk a taxawu doomu Serigne Touba ci ndigalu Serigne Seere bi mu demee ba doomu Serigne Touba yi noppi jiite ci jullikaay bi itam Serigne Seere moom la tànn taxawu ñu ko wax ci woon kon. le sëriñ bi daa wax rek li yées ci adduna mooy xam xam loo amut ak am loo amut kon yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu ñu topp ci gannaaw bi suñu kilifa ndax moom kat kenn mënu koo xeeb ci dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxalin te yitteem yëpp génnut yërmaale ci nit ñi génnut bëgg ñëpp am jàmm boole ko jaam yàlla bu ma sëkk. te bu fépp jëfam génnee ñëpp xam ne jëf ci dara mu jaaxee ma ñu koy ñaan mu yàgg ci daal di nuyu suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mamadou Diop Baara jële liggéey bu teg ko ci loxo maa ngi koy fàttali suñu soxla suñu taxa moo woote woon ci kër Sëriñ Tuubaa ñëpp toog booba Cheikh Sidi Moxtaar bi nekk moo ci mu njëkk ma mu woote woo jëmale Sëriñ Tuubaa yëpp neen daal boobu ngeen ànd ba siiru jàppale ko ci liggéey ndax bu ma soxla dara suñu saa a seetal lépp waxoon na ci ma ba ci jataay ba waxoon na fa kàddu bu diis ne bu ma ko sañoon man ñu may laxasaa toog ci ginnaaw waaye du ma du ci ginnaaw ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loola ci noppal kon suñu cat ci moom yàlla suñu tubaab yi ko seetal bu toon lépp itam xam gi ñu xam li muy def ci diggam ak boromam ngir bëgg ñëpp am jàmm fu ngeen ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am nit ñi fu toll war nañ koy ñaaw yow ñu kon ñu ngi nuyu suñu kilifa yi baax yi nga xam ne ak comité organisation bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi nii ren dañuy fukki at ak juróom-benn wala juróom-ñaar waaye boobu ba léegi nii kenn tayiwu ci kenn toppuwu ci waxtu bi dañuy seen procédure bi liggéey kon ñu loolu itam noonu la Serigne Touba doxaloon ab bi ab liggéey ñoom ñëpp ci ne sama Serigne Touba. lu mu def ñëw la ko daal ñu itam ci yoon boobu képp la ñu te loolu suñu tubaab te loolu lay def ñu leen sant di sant bu di yëpp di jot li kàddu yi nuyoo yoo xam ne ñu koy teg ci loxoom gouverneur de la région bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak service yu ñu ko soxal te ka ñu jiitu du préfet bu Mbacké sa sous bu Ndam nga xam ne ndaje yi ñu ko def ci commune Touba ca Serigne Ousmane teewe ko ak Serigne Dakar ñoo ko àndoon ba liggéey ca lépp solo ci liggéey demaat ca ndaje euh, Mbàkke waaye defar ko ci commune ndax mu bëri yaatu ba li cëpp lu waxtaanoo ak chef de service bi bu seetlu kon gouverneur ñu ngi yëkkati ñu di ko ci salon nga jot nit ñi ko ku jiite réew mi tey di président Diomaye Faye di yóbbanteel nuyoo sëriñ bi ak wala ñu seq ak liggéey te bu ñu tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu mag bi ndax wàllu diine ji ci foofu la nekk di leen ñaanal suñu borom dimbali leen ba yaakaar ji réew mi ak coono suñu borom koy ko ras ndax yaakaar rek nit ñi moo tax ñu fàtte suñu kilifa bu baax la Cheikh Abdoulaye Mbacké daaw ne yaa nag ka fi am ci la xëyee ak ci la gontoo mu ne mu ne ki la xëyee daa tëdd ko guddi jaaxle ci biir xelam xalaat ba sonn xel rek moo ne rek waaye ni nga fexe ba yaakaar ni mu tase ci yow nee na ci la gontoo itam daa xëy woon feneen yaakaar mu defoon mu dem fa boo ko yaakaaram tas fa mu gontu la kon dikkee na nga fi am yaakaar bi dootul tas kon nag ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ sóobu xam naa buñ demee ci biir Serigne Ousmane bi nga xam ne mooy saytu kuréel bi nga xam ne mooy saytu mag ak ñi mu ko àndal ak seen i xarka dañuy leeral li jëm ci wàllu liggéey fi ñu ci toll ak li ñu ci war a jooyante ndax màggal gi moom bisu Serigne Touba suñu borom def def ci def la fi ñu ko wootee tey ci daj bii di gouvernance bu njëriñ Sëriñ Tuubaa fii la jëkk a wootee màgg ji 1921 wala 21 daa amul jiw nag waaye génn ñaari at yooyu ci la Sëriñ Tuubaa xëy bis ne natt yi ma sama borom doon te jeex na li di des ci sama dund lépp ak payta ak xew màgg ji saa su aseetee xew bi moo suñ borom defaa da koy fulaat ba mu toll noonu fii la boobatoon ci njëriñ yëmutoon ci woote ko ko waaye dafa taj njëkk tàmbali moom ci ci biir këram mu mujj màgg gi dem ba génn pénc kon sëriñ bi lii mu woote waat ñi fi jaboot Sëriñ Tuubaa ñu fa wuute di ko woote ndigalul Sëriñ Tuubaa waxoon ci ay waxam yooyu ginnaaw bi tam ñi ko fa wuute ñëpp wóyul ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu fi nekkee ñu ko doon dundal ni sëriñ bi daa dundale te moom ku ne da nga ko laaj bi sa kër ba Cheikh Mamadou Fall Mbacké ñëw woote ko ca Touba ne léegi sëriñ bi kat mi ngi Touba nañ ko woote foofa ginnaaw mi itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw woote waat ko bi ñu ko wootee itam Cheikh Mamadou Fall li nga la waxoon ba mu ko daa na waa fekk bi dañoo am bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñoom bis man yaakaar naa ñaanam boobu adduna sépp tëg liñ ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bu ñëwee dafa wax ne màggalu Touba mooy suñu fête indépendance dafa wax ñëpp ñu dégg te loolu itam lu wér wér la ndax fête indépendance bu agsee ci Sénégal bis bi Sénégal moo boppam ci saa yaakaar naa ñu xam nga tey kenn liggéeyu ci lañ ko yëngu wala ci télévision lañ ko yëngu waaye màggalu Touba képp mooy màggal koo xam ne boo demoon Dakar boo yaxee sax jafe-jafe oto bu yóbbu la ko am kon màggal Tuubaa rek seen daal waxam mooy suñu dëgg-dëgg terrain bi daal mooy lii la ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey lislaam dana fàtte lislaam dana saa fàtte la kéefar dana fi lool ak tubaab bi dana fi lool Sëriñ Tuubaa doog ñu doogoon liggéeyee ni borom ci bis bi ba suñ ko fayoo ko mu ko fayal looloo waral ñu jot suñu bopp kon màggal Tuubaa mooy dëgg dëgg ginnaawam sama Cheikh Abdoul Khadim Mbacké danaa wax bu màggal Tuubaa nit ñi di jàmbat réew mi dafa na xëy ndax nit ñi moom loolu la àdduna baaxoo mu ne leen màggal gi ne jërut ma tëw xaale daa wax ne màggal Tuubaa ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen sëriñ bi daanaka moo tax màggal organise ko dafa nuru lu jafe waaye yomb na ndax li tax mooy taalibe bu nekk dana fexe ba këram jàpp waaw loolu ko jàpp naa ne koo xool gis ko bi ñu fi bàyyi ko itam association moo doon baax comité organisation bi ñuy wax tey ci nekk na tam Cheikh Sidi Moussa itam ñëw bokkaat ko dolli ci yu bëri bëri ba assur moom taxa yàlla fi yàgg taal bi moom itam daaw boobu ñooñu joxaatoon dafa gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi moo suñu defar àdduna ak suñu defar àllaaxira mu woote woon yow bokk na ci la jox façon ndax day mbirum baax di su ko mën a leeral waaye ba la ci mujj mooy waajal ko ak Tuuba kon xam na nag Tuuba te day kon màggal gi rek. du jar a sori ci li tax ndax Serigne Touba lu dox digg ma borom ka moo xëy bis wax ne loo ko ci ñëpp santal yàlla li tàmbalee ci gannaaw ba ci am xaafet la yàlla jaamu yàlla ci màggal Touba gi la ci jiitu mooy ndigal li ci Serigne Touba defam la lu ci dolli ko wax dañ ko ci dolli ngir xam ne lu baax la ak bañ nit ñi def loxo waaye lam ci liggéeyal boppam nag te léeg ko teg ci kaw waaye suñ moom lam ci santaane woon mooy gàncax kon màggal bi la. loolu itam bu dul jaar la yàlla suñ tubaab deful nuñ koy layee bisu tabaski bii ñu weesu nag suñ borom dafa wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dafa wax nit defalu ci jaamu yàlla lu gën rek lu ñu dem lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaahuhaa walaakin yanaaluhu taqwaa minkum ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tuddee ak tabaski waxtu sëriñ Saliou moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy tabaski waxtu am loolu day day day faral sunu Sayyidinaa Ibrahima kon dee nañ ko tuddee ak màggal baatu màggal ci sëriñ Tuubaa kon loolu moo tax ba léegi màggal gi nag moom yaari fan la. mooy fànn gi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te li ci ëpp mooy li jëm ci wàllu ndox kon loolu itam xam naa buñ ci liggéey daañu wax fi ñu ci toll ak jiw yi jëf kon ñu ngi leen ci ñaan baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi nga xam ne dëkk bi xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat gi nekk ci digg nawet bi loolu itam yéen da ngeen di yàlla faral ci toll ba ca des it mooy wàllu courant. courant bi itam xam ngeen ne ni muy màgg di ko ndax ay 2003 2004 Touba mi ngi tolloon ci méga méga weer méga la te toll fii may wax ak nii dem na ba àgg ci 100 mégawatt kon dëkk bu màgg noonu bu ngeen gisee ci jamono yi ëpp Juuf ak président Abdoulaye Wade daa ngi def at mu jot ñu maye courant bu bari ci dëkk bi. mu jug ab laa daane def at mu jot ñaari at yu mujj mu juut at mu jëkk ma cinquante kilomètres lay joxe at mu mujj ma deux mille onze ñu joxe cent kilomètres cent kilomètres yooyu itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Tuubaa ni mu bindoo amul benn quartier booy dem ña fay dëkk benn kilifa bu sant sant ay terre jox ko ay terre bi booy daal mooy dëkk boo xam ne Sëriñ Tuubaa joxoo ndigal mu ne woon ci bitti Touba Touba dem ba mëdd ko la war a si Touba si kilifa boobu ñaan ko am daa séddalee ci biir kër yi yàlla nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur bi ministère ba yoroon énergie bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu demee naa nguur bi yees la toujours baaxoon na ci am bi mu xoolee kër yi ñu tur Daaru Xudoos tur Daaru Minaam tur Daaru Muxti tur Daaru Salaam tur lu ko Cheikh Ibrahima xaw ma dem mu man xaw ma courant ci ay kër yi kilifa li ma xam mooy courant bu jëm ci population wax ko ci conseil des ministres yàlla def kumpa am ca loolaa waral excitation yi ñu ngi ci benn excitation bu jaaral def ko ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi sax duñ ci am dara loolu mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkk bu ma ko mosaan sàkk fii dama ko waxaat bu ñu demee ba ci càll duñ ko def te duñ xam lu ñu loolu daa mat a leer assainissement bi itam bu ngeen marché dégg ma wax ci loolu kon weesuwuma ci ci lu weesoo i i itam ba ne ma fii lañ ci lu weesu loolu man mii di wax ak yéen sama kër gis ngeen daal assainissement ak ci kon noonu la loolu tamit day ma a leeral ndax nit ñi xam ne def du ko raad boo xam ne joxeetuñ ko woon sax ci waaye bañ ko daa joxee nii la daal di ñëw ndax kilifa bu ne taalib bu ne taalib bu amul accès ci maa dem ci nguur gi leen ñaan pour ak seen kër ku ci ne sa kilifa nga dem seen kilifa yooyu itam ki fi nekkal si tubaab yi ñu war a ji kooku jox ma kàddu moo ko liggéey noonu rek la ñu waaye moom li ci am solo rek mooy loolu moom seen wàllu débat boo xam ne euh, ñoo ko wax rek mooy wàllu am loolu yëfi état bi yëfi tubaab ndax tubaab moom. yaakaar naa la ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax Tuubaa képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ab hôpital ñun la day abal nga gis éclairage public ñun la day abal nga gis ay poste de santé ñun la day abal nga gis ay tëli ñun la day abal nga gis ay résidence ñun la day abal kon moo leen ñu moom nangoo liggéey jàpp naa ci suñu la am kon nag màggal gi moom borom defal na ko borom yéen nag li ci war a xam ne ni yéen a ngi ci kon ñu ci toll sëñ Ousmane ñoo ko sëñ ko ngeen loo xam ne sëriñ Touba ba waaye daal di woon na it ne màggal gi dana dem ba àgg foo ne ku man mi ko woote ak yàlla suñu borom bu bind nit ñi doo xam dafay teew ci mbooloo toll xayma bi nga xam ne nag. waa jël yu sit ba ndax mu baara loolu moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal ji tey def ko fête indépendance ba njëkk dañ daa wax naan màggal Tuubaa day daanaan économie yooyu ndax nit ñi duñ liggéey ba defee étude bi nag ci lañ xam ne màggal bi day yëkkati économie yooyu keroog rek wax président Abdoulaye Wade man mu baara loolu maître Madické Niang ñoo fekk jotaay ñu bëgg julli ji àjjuma ba ko waroon waxee ne ko màggal gi dañu ko defee ren la loolu mënti ne te ndax Sénégal conflits yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa des ko defee di indi coow mënoo ko bokkul man mii di wax yow bokkuma Touba Koki la dëkk bu fekkoon damay défendre Koki laa laa défendre waaye Touba dafa tolluwut a fekk wax joojee nag moo ñu topp ba léegi mooy bëgg jàppe Touba dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati Touba tollatu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na ngeen ne daaw bi ñuy def étude yi dañoo wax ne Touba dëkk bi gën mooy Sénégal ba fa biñ ñi def recensement bi ñuy ànd ak waa commune bi ak waa Touba ci kanam ak mbooloo mu dikkee ma ko recensement bi ngeen di def dafa baaxul bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis nañ ne Touba wóor na ne li ci dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal doonte la nag fa àgg lépp ñu bari bindul waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg gis kii bi da ko gis fu la tëddee bi ñu xoolee daaw màggal yi dépassé yi yi jëm ci biir kër yi dem na 74 milliards dépassé yi jëm ci kër yi dem na 74 milliards bu ñu xoolee xar yi ak nag yi ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee bu néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp ñu defaat kër yëpp. ñi xaalis bi jóge bitim réew am na ci génn këru bu ñu yónnee xaalis bi wax rek wax na ci làmb ñoom ne ma ñetti fan màgg bi trois milliards na ci biir dëkk bi jaar ci moom benn kër banque xam ngeen ne boo dem day am jafe-jafe kon màggal Tuubaa li muy dugg ci réew mi ñoom ci seen xayma yi gën a néew yooyu na deux cent quarante milliards kon deux cent quarante yooyu képp jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ko defoon war naa mën a defal dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Touba nag duñ jàmbat ndax hmm. loolu Serigne Touba dañu koo tere képp ku fi nekk jiite réew mi boo defee lu baax dañ koy sant bu fekkente ne lañ séntu mot tam du tax ñu xaram la loolu moom Serigne Touba dañu koo tere na soxtu bi shukri shikaayatan fala ashkuru duri yoo duri abada waaye bu ngeen di xool ci li lépp ñoom ñëpp jàmbaar lañ leen leen bu baax a ndax teraanga kenn du ko xeeb waaye bu ñu xoolee Touba dayoo bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi kenn kaaru sax kaaru dëkk bi sax dañu koy tëj assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi bëriwul suñu tool waaye xaw naa yokk la ndax boo demee ba kër yi wër jumaa yi feeñ ñu def la sermon observatoire fa ñu teg baax ba daanaka lu jege téeméer million ñoo ko a ñàkk ngir mën kon xam ngeen loolu bu mu ci jublu dëkk bi dañ yàq loolu la responsabilité état loolu sëriñ bi wax dëgg loolu état bi wax kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu ko te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réussir bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam ngeen xëyut ci Tuuba ndax capital région yëpp boo xool ay fukki forage fukki forage yi ñaar wëyeesu te seen ndox moo yore kon Tuuba réseau bi dafa yàqu am na ci foo xam ne ñu ko gas wax ne boo ko laalee moom moo ko boo demee tey question bi daal. ndox maa nga ci biir nga dem ko sëñ bi daal ndox maa nga ci biir armeel yu bari yàqu nañ ndax ndox mu bari boo demee que suñ sari ndox maa nga ci biir suñ seex daaw tawax lu soxla def lu leen lañ def daaw jël ngir mën ko faa tawax boo demee fépp ba ci péncum dara xoos comme ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi comme loolu mooy sax li gën a jàpp mooy assainissement bi ak réseau bi comme loolu ñu nekk ko fàtte ndax màggal yi day loo xam mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci deere waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha yow bu ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bii moo bindoon adduna képp ku daa ci sama bis bii da nga gis teraanga yu doon ko ci yow yoo xam bis bi kon màggal gi jàmm bu amee ci Sénégal dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu xeet Sénégal gépp nekk benn. màggal bi bokk na ci suyu ni ci loolu loolu ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñi màggal ay wolof la vingt deux pour cent yi ay séeréer lañ onze pour cent yi ay alpulaar lañ cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yenn xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne 15 pour cent doonuñu ay taalibe Sëriñ Tuubaa seen mbokku jullit dañ ñëw àndal ñu nodd 1 pour cent yi nekkuñ sax ay fa kon loolu liy gën a dëgëral li gën a dëgëral bennoo Sénégal màggal Tuubaa suy di ci woon bëri kon nag ñaar ñu ñu ñaar ñu ànd ba yàlla dimbali ci ba ndam luñ ci daa ñoo ci lu ko yéen ñi nga xam yéen a ko taxaw itam suñu borom dimbali rek kàttan ak ba lu ngeen ci taarix rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaay yu bëri fi mu toll moo tax am na ci soñño yu am sax bu jël àggite ndax seen daal bi laa wane ku ne la jàkk bu ko bu fekkente ne xam na jàngoro xam na ko ci wax foofu la du door ak si biiru sonko foofu lañ ci yore kàddu asalaamaaleykum wa